Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV Sete jours, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New é New York, que York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, New York, loolu wér na ma kii dama ko weesu nañ ko ma gëmul yi ne yii wax ni billaahi bu ko saafaloon xottu tas mu lekk day nit day nit pa bi xeex day nit bu rayee bee jeex na day nit day dem France daf fee war a jógee réew mi am jàmm ah tant la France est là ah France dina benn yoon ah seen bopp moo tax France du fi France du fi mës a jóg ndax sénégalais yi ñoo gëmul seen bopp bi fi Ablaye Wade di nekkee def eh ak xam moo ñu dal ah. ak Ablaye Wade moo dal réew mi ay workat ñoo fi ne wor ba kañ ba kañ balaa may bëgg a dee ku nekk toilette ànd ak sa caga dugg sa kat-kat jël suñu xaalis la la ñoom ñëpp tout justice beeg lépp ay trompi lañ tout police gendarme sapeur yeeg ñëpp a ci yem ay trompi lañ tout waaye yow lan la baket benn yoon la ku xatu da nga gëmul ni da ngay dee rek waaye ku xam ni da ngay dee doo xatu kon ñu roy balaa may bëgg dee ku nekk jël sa polo ak sa caméra di ko presse bi yëpp ay corrompu lañu information amatul amatul 2S bu ma jëlee baalu ma ba ilaa yow RTS 2 bu ma jëlee baalu ma ko dafa far dafa far dafa far booy far da ngay far ak réew mi man dama yor jabar yori doom ma nga sama kër ma bàyyi ma réew mee ma ñor naa dee fii eh bu ma dugg sama kër morgo ba lañ ma yóbbu sang ma dem suuli au point barki seexal lislaam man aw ma lu may ragal bu dee réew mi la pare naa pour sama bakkan Baye Ibra laa tudd Baye Ibra aw ma lu may ragal barki seexal lislaam boo ma dee kutt di ma lekk ba ma jeex tàkk liggéey bi ma damaa gëm ni damay dee an sama baay dugal naa ko ci suuf an sama yaay dugal naa ko suuf lan moo fi des ñun dañuy dee bàyyi fi réew mi Macky Sall moom mooy kan

di fa voté ji buun ku yorul loo ndekkee nooy bàyyee fii say doom naan yaa ngi voté ji Tëngéej wala jas tey carte d'identité jàmbur yi pour lan ah ñëpp a yam yàpp mbaam aram na mais ñeex ma aramut loolu la ñuy dund ñëpp imam yee ngi ni weeru koor ma invité leen pare Marème Faye Sall defal leen tufe am lu ci wis lu génn ñu ñun dañ koo xeex démbal barki démb képp waxuma la journaliste mais képp kuy ñëw marche chaque jour wala di bañ injustice war nga ñoo xàmmee ñun ñoo yor communication huit ans ci ren ñun ñi ngay xeeb ñoo yor communication Khalifa man mi maa ko yor ci ren lépp fii la ma fekk nu ñu xeexale Khalifa Sall démb xeexal ko baat xeexal ko injustice yëpp Bamba Fall ak ñëpp moom lañ taxaw tey rawatina nag bu Guy Marius Sagna parce que lii c'est pas politique c'est pour la génnal di xeexal courant bi ñëpp a ko moom kon askan bi ñëpp a war a wàcc bañ injustice ñun lu ñuy wax nëbbuñu ko làquñu ko on est des jeunes purs mûrs et durs ñun jeunes yi ñun ñoo war a xeex parce que trop c'est trop et quand c'est te tey bu jógee si Guy Marius suba si ñin la ñëw gannaaw suba si sunu doom yi la jëm injustice boobu la ñuy bañ. waxu troisième mandat man duma ci prononcé wu man duma ci prononcé wu man laa Lion parce que nag man mii di wax ak yow tey xam naa ne bu doon nguur rek bu doon donn rek duñ fi toog tey si Senghor la ba léegi bu waree wàcc day wàcc te moom li ko fi teg mandat bi xam na ko kon wax ci sa yàq gémmañ la du débat. débat mais dialogue collectif bi ci booy wax da ngay war a seet looy wax et puis Sénégal li si koy wax moom mooy yaa de dafa am ay nit ñi mérite bi dafa nekk ci nit ñi bu fekkee kii ba dafa dafa war a fay benn laaj dafa war a mais ñoo ko dégg nit kat dama tax ñu gën a tax dama ci wax waaye waaye laaj waaye laaj waaye laaj parce que coow li ñu def pour pour pour divertir leen bàyyi mu seet wax la l'essentiel l'essentiel mooy li nga xam ne

dalan maye nag awa gën ngaa wax de awa gën aan? wax de awa gën ngaa wax de awa gën ngaa wax de Comme ne pas gérer, comme n'y a qu'à dégager. Comme mettre personne qui soit à la hauteur. On s'égale pour nous et par nous. Pourquoi les manottes Donc les mots, c'est pour montrer que nous ne sommes pas libres. Nous sommes emprisonnés. Nous ne sommes pas libres de déplacement ni par nos paroles, ni par nos gestes. On sera libre, on sera être mais ceux qui sont dans la sont plus libres que nous. Donc là, il faut au que c'est à nous de prendre les armes. C'est à nous de nous révolter. Parce qu'on ne peut pas se révolter n'est pas digne d'être un peuple. Il comme Amak comme pour notre liberté, comme pour notre indépendance. Et là, on a marre, on a marre de nos colons là qui la France. Ils regardent la France. Ils veulent qu'on s'arrête pour nous et par la police partout. police partout. police partout. la neexee yëgal taxaw fii. ndax nag sunu borom subhanahu wa taala daf ko wax. Ah. nana dama leen sàkk. waaw jox leen lu ma joxul kenn. li ma leen jox joxuma ko benn mbindaaful ci àdduna yéen laa ko jox muy xel. wala amee seen jafe-jafe du man mel ni amul doom ah kii xanaa dañ doon jël man am da ko jox ci Maram Faye ba am doom doomi raam la journaliste yëpp ñu ci bëri ay kuréel bi lañu tout information bi jàll jàllul jàllul doomi raam la leen naan ay ay ndax sunu borom subhanahu wa taala daf wax nana ah. dama leen sàkk waaw jox leen lu ma kenn li ma leen jox joxuma ko benn mbindaaful ci àdduna jox muy xel boo amee seen jafe-jafe du man Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal for TV forever.